yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa jàngal sayiduna jibril alayhi salaam moom itam wëlbatiku jàngal ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruuxu al amin ala qalbika li takuna min al mundirin bi lisaanin arabiyin mubin moom itam biñ ko wàccee ci moom alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngal saxaaba ya huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma saxaaba itam ñoo ko jàngal ña toppoon ci ñoom ñu di ko jàngalante di ko jàngalante ba mu agsi ci sunu jamono ji jamonoy ku tedd ka alayhi salaatu wasalaam danaan yabal ay sëriñ daara ci dëkk yu bari ñu fay jàngale alquranul karim yabaloon na Mus'ab ibnu Umayr mu dem Madina doon fa jàngale alquran ak diine am na sax ñu mos yabal ñuy jàngale ji waaye noon yi dañu leen a rey muy shuhada biir mauna ak shuhadaa rajia alquran mooy téere bi nga xam ne moo waral ñu bari tàbbi ci lislaam sidna omar ibnul xataab alquran a tax mu tàbbi ci lislaam an najashi di buurub xabasha alquran a tax mu tàbbi ci lislaam ba sunu jamono ji lu bari ci ay gëstukat di ay tubaab di ay boroomi xam-xam alquran da leen di jommal ñu xam ne lii du waxi nit ndax ba mu wàccee ak léegi ëpp na junniy at te lu ñu gëstu ci wàllu science gis ne day dëppoog moom ci anam yépp ñu daldi daanu jébbalu xam ne yàlla rek mooy dëgg alquran te mooy dëgg alquran doon téere boo xam ne képp ku ko mos a wattu dañ lay sagal dañ lay jiital julli juróom sax dañuy seet ka ca gën a mën alquran mbooloo bu ñu faatoo bañ leen di rob te ñu bari lool ba mënuñoo gas kenn ku nekk am xabru boppam dañuy def ngaare loo xam ne dañ cay boole néew yépp waaye bu ñu leen di rob dañuy seet ña ca gën a mën alquran ñooy féete kanam ndax xarib Uhud la ca faatu woon bari na waaye bañ leen di rob ci menn pax sang ba dane woon ayuhum aksaru axzan lil quraan ana ñii kan moo ci gën a man al quraan fa ida axbaruhu qaddamahu fi lahd daal ne ana shahidun ala haula buñ na ko diw ak diw ñoo ci gën a man al quraan ñoom lay jiital ca xibla bàmmeel ba mu wax ne ñii ma leen di seere ca jamonoy sunuy maam sax alquran moo doon àndaar ji nga xam ne moom la ñuy natt nit nit ki ay bokkam dañ koy nawloo ci ci su ma nee alquran ñépp xam nañ ko ci diggante maam maaram ak doomam ja maam soxna Mbàkke Awa Ñang nam ca doxale ñépp xam nañu ko mu wane na alquran mooy liñ daan nawloo nit muy loo xam nit su ganee àdduna baba muy génn àdduna wërta wan ginnaaw alquran dafa war di ko jàng di ko gëstu sëriñ bi nga xam ne nag amuñu lenn lu moom lu ne da ko ci jëf wax ko ci nee na samay àndandoo sama àndandoo mooy yonent bi ak alquran ak saxaaba yi rafiqi rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fi lbaxri xiina ajuuru wax na ne sama wéttal mooy yonent bi ak alquran kitaabu rabbi gada anisi min baadi kaw ne li mustapha raisi wax na ne sama teraanga sama ndam sama daraja mooy rasulullahi ak ak kitaabullahi karamati wa mafxari wa jaahi kitaabu rabbi wa rasulullahi wax na ne alquran ji ci laa jàpp mu doy ma sëkk ba may tumuranke di nekk ca ay tiis alquran a tax yëguma ca dara lépp lu ma mos a naqari ak lu ma mos a diis alquran a tax mu woyof moo tax jàpp naa ci moo may wommat may itam ci alquran laay wommate ñu topp ñu topp ci man kitaabun bihi massaktu mustaghniyan bihi ghariban wa ansaanil musibaati wal ka'ba bihi zaala ghammi hiina amsaktuhu hudan sa ahdi bihi nafsi wa ahdi bihi sahba moo tax bam koy tal daana jàngale alquran daana santaane ñuy jàngale alquran daanaka jànglu daana ko jàngaleloo ñu koy jàng jàngale ci ndigalam daana ko bindulu daana ko jënd daana ko jëndulu loo ko jox mu ne tegal fi suuf boo joxe alquran mu taf ci jëmmam moo tax am na ceddo bu amoon ak moom aw dig ba seen diggante ñagas ñoo ne ko soo bëggee mu jéggal la da koy jox alquran mu yónnee ko kaamil mu ne ndaw la alquran de duma ko delloo su dikkee duma ko delloo waaye nee ko soxlaatuma daraam lu bàyyi ko ci moom waaye alquran duma ko delloo teraanga ju mosa am da koy defal waa alquran fu mosa nekk dana tànn ñeent fukk ju watu alquran ñu dëkk ak moom sàkk daaree kaamil sàkk ay imaam yoral leen seen lépp alquran la ca xawoon a taq muy te bokku ca moo ko fóot ba mu set muy laawaan ma nga xam dafa xewoon ku mosaa man alquran wattu ko tey ndaw danaan na bokkutoo ci ndaw ñi léegi ci mag ñi nga bokk daan wax ne képp koo xam ne danga am njaboot te soo ko saytoo taxawu ko mu mokkal alquran téereb yàlla bi nga de ko sàggane ba wattuwul alquran gisuma ci kaw suuf lu ko jar daan wax naan na ngeen sax ci jàng alquran su ngeen bëggee mucc ci mbugalu yàlla ak yeddeel dum ya axi ala tilawati alkitab fa innahu yakfi alaadaba ko jàng guddi ngir jëmme yàlla ci lu nëbb ak ci lu li wajhihi lu mel ni ay fas ak i nag yow na nga jàpp ci alquran bi al bi tilaawati alfiqar tafus bi maa yunsil xuyoola wal baqar wax na ne del fàttaliku sa boroom ci jàng alquran kon danga am xéewal yu gàcceel géej yi ak taw yi ishgal ishgal lisaanaka bi zikri man fatar tafus bi mux jiril buxuuri wal matar wax na ne jàng alquran taqoog moom soo ko defee yaay kafalu buur soo yëgee ak soo yëgul taqoog alquran soo ko defee yaay ka doon bëgga a lab am gaal goo xam ne moo la xett li inna tilaawatal kitaabi mulku wa huwa liman yabri najaata fulku wax ci lu baree bari loo xam ne mënu su ko lim waaye xam ngeen ne ña woon lislaam démb ak tey dañoo taxaw temm ci faagagal lislaam amoon na kilifa gu mag ci Angleterre mos naa wax ne ñaar yi fii mi ngi ci kaw suuf lin bëgg ci lislaam duna ko am muy kaaba gi ak alquran fekk kaaba gi mi ngi màkk fekk alquran mi ngi tasaaroo liñ bëgg ci lislaam doona ko am waaye kaaba ga moom du fa jóg ndax inna lil bayti rabban yaxmihi alquran tam du fi jóg ndax in inna nahnu nazal na dikra wa inna lahu la xaafizun waaye nag nanu laxasaayu te xam ne saxaaba ya nañu taxawoon laxasaayu ba lislaam agsi fii mag ñi àndoon ak sëriñ bi laxasaayu ba liggéey ba agsi fii léegi ci sunuy loxo la nekk nu ànd koog suñu kilifa alquran day di ko jàngale fardu kifaaya la su ko ñenn féetewoo di ko def wàcc na ñëpp waaye su ko ñëpp bàyyi woon ñëpp ay am bàkkaar wa xifzuna alqurana mimma juila fardu kifayatin ala ma nuqila xaysu bihi yaqulu qawmun yaxsulu bihim tawaturun ay ittasalsulu in lam yaqum bi darsihi hada al adad asima kullu l qawmi lazimi rachad loolu la sëriñ bi wax sëriñ bi waxoon na ne bu fekkee am naa nattu am naa cat mooy ñàkk dëkk Touba sax fii di di jàngale alquran loolu mooy sama cat ñi gën ci nit ñi mooy ñuy jàngal alquran wa afdalu nnaasi alladi taallama qurana rabbihi wa gayran allama nee ñi gën ci nit ñi mooy ñi man alquran ba noppi di ko jàngale nee na sax dagan na ñu di ko jàngale di fayu di fayu xaalis li qawlihi sala alayhi llaahu wal ali wa sahbi wa man walaahu fa xayru ma taxastumu alayhi ajran kitaabullahi bi tanbih kon daggal na sax di fayu di fayu di jàngale alquran waaye nag noonu lislaam na ngay bind ay téere ngir bëgg a yokkiloo waa alquran di defar ay documentaire ngir ñu yokki di créer ay euh, ay ay ay ay way ay way àdduna yoo xam ne dafay tax nit ñi di sobental alquran di ko di ko woyofal defar ay film yoo xam ne dañuy yàq lu mel ni xamee alquranul karim di def ay séminaire ngir nit ñi bàyyi alquran ñi nga xam ne nag ñoo féetewoo wàllu àdduna nañu xam ne am na ñu responsabilité ci kanam yàlla ak ci kanam taarix ndax askan wi bu ñu xiifee ñi yor wàllu àdduna am nañ ci responsabilité kon waruñoo xiif waruñoo mar war nañoo am ay làmp war nañoo am ay yoon yu ñuy jaar war nañuy liggéey war nañoo faju yooyu nag li muy doon doon farata noonu la wattu alquran ak di ko jàng ak jubbanti ndaw ñi noonu la doon farata wala nu ko raw kon nag warugaru ñépp la waajur yi kilifa yi waaye ñu yor wàllu àdduna tam seen warugar la am na nag ñu yàlla may seen loxo jot seen ginnaaw ñu defar ay daara waaye doyul am na ay internat yoo xam ne dañuy fayu waaye ñii seen loxo jotul seen ginnaaw duñ ca mën a bokk kon nag day liggéeyub ñëpp daayira yi nag am nañ ci aw sas ndax daayira daare maam jaara ca poroxaan wane na ne ay daayira mbooloo bu ñu àndee mën nañoo taxawal lu baree baree bari asaka mën na cee tàbbi ndax asaka buñ ko joxee waa daara mën naa am fum leen féete ñi dëkk ci sancaan yi quartier yi bu ñu amul ndox ñooy def seeni pexe ba xëccu ndox bu ñu amul làmp def ay pexe ba am làmp lu tax bu ñu amul daara duñ def ay pexe ba am daara dañ ko war a def daara yi nag am na lu mu àndal loo xam ne jamono la woon jamono da ko weesu ndax péncum Tuubaa mii su guddee foo jaar ci pénc mi gis ay gone yuy fanaan bitti xamoo kuy seen kilifa xamoo fuy seen daara doo xam ñi ngi ci ay loxo wala nekkuñ ci ay loxo mënees na leen a sàcc mënees na ne def naka sudul noona loola àndul ak daara tilim bu jëkk ndox amul woon kenn ku nekk loo naan nga tal waaye loo sangoo doo ko tal waaye jamono da ko weesu rafle am na jamono yoo xam ne dongo ngemb rek lay def du sol mbubb du sol tubéy du sol dàll waaye jamono da ko weesu yalwaan dugg ñaari kër ñetti kër am pepp am wóor toj sab xol ba doo rëy amoon na waaye léegi nit ñu yalwaane jamono ko indi waaye jamono weesu na ko yooyu nag kon yu mata waxtaane la yooyu kat yu mata waxtaaneel waxtaanu biir woo xam ne dañ koy waxtaane ci sunu biir am na itam ñoo xam ne du ñu ay sëriñ daara dugg nag ci biir liggéey bi wut ay daara yor doomi jàmbur di leen sant ñu yalwaan nga di ko dunde te kat clinique bi ñuy faje soo ko ubbee te doo fajkat ñu jàpp la avocat soo ko bëggee def te baro bi bokkoo ci ñu jàpp la consultant soo ko bëggee doon te dëppoo ca ak ña ko jagoo ñu jàpp la waaye daara moom mooy kumba amul ndey ku mu neex nga taxaw ne damay jàngale alquran te du mujj fenn kon nag yii xew ci jamono ji ba tax coow yu bari nañ ko waxtaane décret mu munu ko fee jële loi munu ko fee jële waaye waxtaan mën na ko fee jële weccante xalaat mën na ko fee jële alhaaji naar Diop alhaaji naar Diop ñépp xam nañ ko di mbokkum sëñ Mad Lamin Diop ba ñu ko jéngee ci kanam sëriñ bi sëriñ bi dafa tàng jër wax ca lam ca wax loolu ñu xam ñëpp xam nañu ko sëñ Moutali Bousso ba mu dalee jàng sëriñ bi dafa woolu magam sëñ Modou Fati Kanni ne ko damaa bëgg nga jàngal ko te doog ab yar du ko laal mu ne ko sëriñ Bousso de mooy man loolu mu ne ko wool ma ko mu woo ko mu boole ko bàyyi sëriñ moo ko jàngal ba mu wattu te musu koo laal sëñ Mbay Jaxate ku ne xam na ak ndaw la ñëwee ci sëriñ bi fi la moteel motale alquranul karim waaye wax na ne bàmba damaa yar ba ma amoom yar te teguma ab yar ci yàlla bàmba kon nag ay dóor dañ koy jubbantee gone caw dañ koy jubbantee gone waaye am na foo xam ne waru fa àgg jéng dañ ko daan jubbantee gone waaye bu demee ba muy indi coow ba muy indi jiixi jaaxa ba adduna sépp bëgg cee bokk loi du ko fi jële décret du ko fi jële waaye waxtaan mën na ko fi jële naxanteeg ñi koy def yeey leen ci ba ñu xam ne matas naa jubbante gone te doo ko dóor te doo ko jéng kon nag daaraangu noonu daaral mbir la moo xam ne du fi jóg mukk sëriñ Saliou mi nga xam ne moo fi mujj ci mag ñi daaraam kenn daaw fa dóor kenn daaw fa yeew gone daana wax naan yéen jàngalekat yi day da ngeen di jihaad te daw daw xare nag dafa aaraam te dóor bokk na ci daw xare kon mësu nang ku dóor ku dóor ci daaraam waxuma laa jéng kon nag loola nañu ko waxtaanee waxtaanu biir néeg ñu xam ne ñoo ko bokk gone yi tilim mën naa dañ ndax ndox ndox ndox walangaan na ni maskani sallim min al fujjaari wamnun ala al ahli bi maa in jaari ñaan nga dafa nangu kon tilim mën naa jeex rafle mën naa jeex fëgg jaay bi mi na a gàññi yalwaan mën naa wàññi ko ndax dañ ko daan def rek ngir toj xolam euh, sàggane gone yi ba ñuy fanaan biti teenu madu fati bii ci penc mi su guddee ba fa jaaree fekk fa mbooloom gone fa la ñuy fanaan doo xam loxo yu ñu nekk doo xam am nañu kilifa wala amuñu kilifa kon yooyu day mbir yoo xam ne lu ñu war a waxtaane la bu ko am te am na réewu tubaab yoo xam ne kat waxtu jàng bu ñu gisee ndaw mu ni nekk ci mbedd dañ koy jàpp woo juram ne ne ko lu ko tee jàngi ñu nag suñuy ndaw nekkuñ ci ay loxo amuñu kilifa ña ngay jaayantu ña ngay dawal charrette te muy ñoo xam ne soo leen taxawu woon mën nañoo al alquran mën nañu nekk ay fóore mën nañu nekk ay ay ay boroomi xam-xam yu mag ñu sàggane leen te loolu mbir la moo xam ne ñëpp ci am wàll kon nag nañu delloo sewaat xel yi te xam ne sëriñ bi jàngu bii muy tabax te muy mottali yéenay sëriñ sëriñ bu mag bi dafa bëgg rek ku am njaboot nga am foo def sa njaboot mu jàng jàng diineem ba xam nu muy jaamoo yàlla jàng xam-xam yi àdduna ba xam nu muy say ba man ba mën a saytu boppam mën a saytu ay bokkam mën a saytu réewam moo tax muy taxawal li muy taxawal yàlla na ko ci yàlla defal ndam yàlla na ko sottal yàlla nañ ko jébbal caabi yi lam ca doon séentu te mooy la ca sëriñ bi doon séentu yàlla na ko ko yàlla defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadil irham jami al wara yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jàll an xawaadin ارحم جميع الرحم